waaw maa ngi lay fay di la siyaar di la béggee bu baax a baax du ñu képp ku ñu seetaan du ñuy tamit site internet yëpp ndax amuñu seen fay nu ñu mel tey yéen a ngi siy jàpp bu baax a baax kenn mënul dem sans yéen maa ngi leen di béggee bu baax a baax. nga participé waat ci final Miss Sénégal 2021. waaw su dëkk bi laa dëkk ay doomu réew mi lañ fi xew ci réew mi bu ñu si soxlaa dañuy ñëw def suñu participation. parce que tamit xam nga nit yi amoo ñu ñu dul ñu la bëgg quoi waaw noonu la demee di ñaan yàlla xam nga que la meilleure gagne. yaa ngi grand théâtre le premier incha allah nga war fee dellu si muy sa bisu bopp. Mhm. loolu noo koy waajal. waaw maa ngi koy waaj comme li ma doon waajal lépp incha allah dañ koy waajal ñëw gérer ko normal amuñ si benn pression amuñ si benn problème grand théâtre salle comme yeneen salle rek. waaw loolu man defuma dara quoi mu koy def comme ni ma daan defee rek ñëw ko rombaat avancé. lumière grand théâtre dañ fi war a jaar rek yoon la mosuñu fi jaar dañ fi war a jaar dañ fiy jaar waaw mais bu weesoo tamit dañuy jaaraat feneen fu ko gën a rëy incha allah waaw man sama bët fa laa teg quoi dama fi war a jaar nag ndax mosuma fee jaar a ñëw dañuy ñëw def li may def it avancé nekkaat ci leneen. gis la Médina Korok ci seenu Sidi Diop yaay borom Ndakaaru il faut nga yëngal loo yëngal. parce que man maa yàq yaay Baba Diagne nongo Farimata man maay Mame Matar man maay sa tullak daawar bi Bassirou Diagne sama maam Adja Awa sama maam fii laa dëkk maay borom Dakaaru borom Dakaaru waxuma ko ci lii maay borom Dakaaru ci waaw dëkk bi ay doomu lébu lañ waaw dëgg neexul foofu la loolu la waaw lu ñu mën a xaar incha allah dañ xaar spectacle bu waaw bu doy waar parce que nag lu waaye ti wax munti wax rek ambiance bas Thioung moom waaw fu mu ko jaaroo lay jaar incha allah buñ fi yàlla yóbboog jàmm fii le premier. ambiance suñ ko jaarloo fa lay jaar. fii dina neex bas ñu gis bas euh, par rapport ak bu njëkk léegi ñu gis bas ci yeneen facette. waa mais àdduna kuy dund ñaan nga yàlla di màgg ku ne raam nga toog nga di dëgër dëgërlu ba nga waree dox nga dox dem tey ji bay mun a dox say soxla boo bëggee lekk di jooy ñu lay jox ngay lekk dem ba boo mënee lekk yow boo bëggee lekk dem jënd li ngay lekk kon àdduna noonu la ku ne da te boo déglu aussi suñuy musique tamit boo déglu paroles yi xam ne carrément ngi gis tamit euh, beneen niveau parce que àdduna noonu la quoi parce que ñëw si musique indi sa style bopp yombul mais man dama ñëw ci musique indi sama propre style xool ma li kii di def wala li kii di def li may def doo naan kii kii lay toppandoo wala kii ak lu munti am bastion moom sa bastion quoi unique à mon genre sama yoonu bopp laa nekk ñëpp laa yéen a jàmm mais sama bopp laa gëm. c'est parce que dañu gis nga mhm. ay mag. Ah, mhm. macha allah ñu mën a taasu lool mais nga mhm. ñëw. waaw génn feneen. waaw ñun ñëpp tey jii ku si nekk maa ngi lay ñaanal tawféex ku si nekk tey jii tamit xam nga. mooy loolu yàqoo si aar bi. mooy tey jii ku si nekk di Pape Thiopet muy tey jii ku si mel nii suñu suñu suñu papa Mbaye Faye ba ñëw si daam seen salaam Diallo ñëpp dama leen di ñaanal jàmm ndax ñooñu xam nga ñoom suñuy kilifa lañ ñoom ñëpp ñoom ñëpp waaw man ñëpp laa jox cër te am na loo xamante ni boo nekkee xale boo ko bëggee da ngay respecté ñëpp jox ñëpp cër ndax ku dul joxe cër doo am cër wa man ay détails yu saw ak wax yu saw bëgguma ko ñëpp laa yéen a jàmm. waaw waaw incha allah maa ngi xaar incha allah. dina neex dina yëngu incha allah waaw neex na. <laughs>